alors di ñaan déjà abu Mamadou Sy Yoro Diallo ak Ousmane Ndiaye muy firndeel rek ne liggéey bi ñu def liggéeyu équipe la journaliste bi la ñuy gis xëy na waaye la muy wane bu cadreur amut du am fa mu nekkit bu chauffeur amul du am ñoom la sunu borom boole tey c'était des destins liés ñu wuyu ji ko dans des condition tragiques di ñaan li njëkk mooy ñu ñaan yàlla fa ñu jëm gënal leen fu fi ñu jóge leneen li ci topp mooy euh, ñuy ñaan tamit sunu borom mu defalu ay seen mbokk yi xolu muñ ndax dee moom du jaas ñëpp koy def waaye bu dalee ci kaw ndaw day gën a métti ndax bu dalee ci kaw ndaw rek c'est une mine d'or bu ñu ñàkk euh, c'est c'est c'est c'est c'est c'est un destin boo xamante ni fu nekk mënoon na fa dem lu nekk mënoon nañ ko jëriñ seen réew ak seen continent tey ñu dem wuy ju seen sunu borom ci condition yi nga xamante ni wuy ju nañ ko su loolu weesoo nag man dama jàpp ne bari na nu ñuy ñàkkee ay nit ci réew mi yoo xamante ni waroon nañ ko mën a éviter bu ñu góorgóorluwul tuuti ci xool yan xeetu oto lañ am ndax oto yi ñuy daw ñoo ngi war a daw ndax ñu koy ñi ñu koy dawal war nañu dawal ndax tali yi ñuy daw war nañ ci daw yooyu question yooyu buñ ci tontoo rigoureusement au-delà de l'indignation parce que mën nañu indigné wu mën nañu naqarlu fait bu impressionnant am na mais ñaata yoon la fi fait bu impressionnant bu impressionnant comme bii am waaye buñ ko waxtay waxee nii rek après pare nañ si lu yàlla day am ñun ay way gëm lañ dañu gëm waaye am na ci loo xamante ni loxo doomu aadama def ciy dugg bu baax a baax a baax a baax c'est de l'irresponsabilité notoire caractérisée souvent mooy indi ay jéyee yoo xamante ni c'est réparable moom mooy am donc encore une fois nañ ci jàng nañu ñaan nañu massawu seeni mbokk bu baax a baax te ñun ñoo ko bokk ndax ci ñun la ñu bàyyi ko te lii leen dal tey mënoon naa dal kenn ku nekk ci ñun ñoom dañoo dem bàyyi ñu fi waaye ñun it mënoon nañoo dem ëllëg it ñun dinañ dem donc loolu moo tax euh, euh, bu amee nañu xool lan lañ ci war a jàng Euh, ak euh, nan la ñuy euh, def daal ba yu mel nii ñu mën ko éviter waaw ba nga xamante ni dinañu mën di déplacer wu ci ay conditions yu wóor delluwaat sunu kër te du ñu am benn jafe-jafe jafe bi nag am na ba pare ndax fi mu ne nii booy jógee sa kër moom lu lu ne dinañ la ko ñaanloo léemu bu ne dinañ la ko léemuloo ndax xam nañ la le risque est grand waaw donc yooyu yëpp lu ñu war a mën a saafara la. en tant que humain tout court waaw koo xamante ni en tant que ndaw tamit waaw mooy li ma wax rek ñun ay ñun ñëpp dañu dañu dañu dañuy rëccagum ci lu mel nii ndax mënoon naa nekk ñun waaye nekkul ñun ci abu Mamadou Sylla Dal ak Yoro Dia ak Ousmane Ndiaye ñuy ñaan rek yàlla mu defal leen euh, tawféex ñu eggalee seen ndaw na Euh, mu dolli leen yërmande mais surtout sunu borom defal xolum muñ seen i seen i mbokk ah, parce que je pense que loolu tamit lu métti la ndax ñi ñu fi bàyyi tey euh, waaye mën nañ cee rafet njor ndax euh, ñoom mën nañoo wax ne ay ay martyr lañu mm-hmm. ndax li leen yëkkati woon mooy am lu ñu dunde lu leew yaafu suñ ay jàmbaar lañ xëy doon wuuti lu seen njaboot dundee ba sunu borom moom leen kon ñaan yàlla rek mu dolli leen yërmande Euh, dolli leen njëggal te yëgal leen ci àjjana yi gën a kawe. Pape Djibril euh, benn question a parce que bu mel euh, liggéey amuñu contrat bu baax amuñu en charge amuñu assurance amuñu rien dañuy liggéey nii nii. du dëgg du du dëgg du yoon. du dëgg du yoon ndaw yi liggéey liggéey dafa am solo ndax day tax nit ki sàmm ngorom ak diineem. su ko nit ki di def dem tàggatu ba pare ñëw di ko def il faut que fa mu koy defee la la yoon sàmmonte la yoon waxante ak ñoom ñu mën ko def tey nag bari na ndaw yi sonn ci rédaction yi bari na ndaw yi souffrir ci rédaction yi boo doon souffrir sax ba pare di ko boole xam-xam sax ñu ne waaw ay da nga ñëw ci rédaction boo xamante ni war nañ laa jàppale ngir nga dolleeku xam-xam waaye dolleeku woo xam-xam dolleeku woo alal c'est catastrophique parce que l'absence de formation dans les rédactions aujourd'hui aussi dafa ma ça me fait peur da ngay ñëw rek ñu jox la micro jox la jox la jox la dictaphone wala jox la bic nga commencé dem sur le terrain soo ñëwee gunge bi ci war ak saytu bi ci war ak taxawu bi ci war pour nga am ko dafay poser problème ñu sacrifier la ñoom na seen journal baax rek wala nañu nañu remplir seen journal waaye yow daal est-ce que yaa ngi dolleeku xam-xam wala déet du leen yitteel waaw bu ñu la xañee xam-xam bi xañ la nga dem jàngi parce que ndaw li buy doog a ñëw dafay yeggale jàngam ci biir boîte bi waaw moo tax ma jàpp ne il faut que yooyu yëpp ñu xoolaat ko bu baax a baax euh, parce que man damay écosystème mu média yi daf ma intéressé trop parce que dañu am solo lool ci suñu démocratie bi nga xamante ni moom la ñuy tabax donc il faut que tey jii ñu gunge ñu nga xamante ni mooy pas seulement les journalistes mais les professionnels des média fi ne nii ba ci chauffeurs yi sax parce que bëri na chauffeur boo xamante ni tey xëy na jóge rédaction am lay def dem Radisson dem teeru bi dem fii bés bu waree gën dem Kédougou est-ce que waajal nañ ko pour mu daw autant de kilomètres. c' est des yoo xamante ni war nañ ko poser est ce qu'on a des chauffeurs assermentés yoo xamante ni suñu waree génn Dakar tey dem fa gën a sori ci Sénégal ndax waajal nañ leen ci jumtukaay pour ñu mën ko def ou ah, donc loolu yëpp yu ñu war a bàyyi xel la yoo xamante ni tamit man jàpp naa ne dafay respecter rek il faut que ñu respecter la dignité humaine et que loolu il faut que aussi les employeurs soient beaucoup plus regardants par rapport aux conditions yi nga xamante ni moom la nit ñi di liggéey te c'est valable dans tous les corps de mën ñëw nekk ay ndaw nekk ci sa ci sa dispositif di la gagner xaalis bu bëri ñoom ñu nekk ci conditions yi tumranke loolu mënul nekk mënul nekk il faut que les fruits du labeur soient redistribués soient redistribués équitablement pour terminer